voilà man dama def ab présentation bu ndaw ñun waa Koungheul lañ mais gannaaw Koungheul lañ dëkk dëkk bi ñuy wax Wàkka. Wàkka. ñëpp xam nañ ko Mbàkke Mbàkke xam nañ ko Sisi xam nañ ko Walla yéen xam nañ ko. Uh-huh. baar dañ fay dem dañ fay di waaw defal defal ndànk moo la gis nga ko jigéen mënu kii des si kër kër kilifa aada yooyu ñuy wax noonu. Uh-huh. Euh, dinaa ko wax nag na ma yi baal parce que gaañu na sëñ Ousseynou Laye sa góor jigéen la woon. Eh? waaw lu leer laa lay wax nii. laa bis na xaaral uti benn benn benn xale bu góor bu daan wax euh, Pa Assane mu ngi dëkkoon euh, Padois moom moo doon génn moom. dinaa la jox yeneen détail jamono yooyu noonu ñoom ñoo doon lëkkaloo ak Baba Maal Jibri Waar woo ngeen di wax noonu laaj ko lan la lan la séq ak Baba Maal <laughs> waaw Jibri Waar laaj leen ko lan na séq ak Baaba Maal lu tax ma bañ a woote affaire bi question baa ngi noonu waaka boobu nag ma dëkk noonu nga xam ne mooy suñ cosaat nga xam ne Cerno Ka mooy sama maam lépp lu ma la lépp lu mbàkke mbàkke am muy taalibe ba si Cheikh Béthio wala ba si Aïda Diallo foofu la ñu jëndee sunguf si sunguf si nag du dara suñu si secret la boo xam ne nii tey suñu gisante woon léegi ma may la si àdduna topp la. da ngay may ma rek may ma may ma wax ak yow parce que dama yàgg si ligne bi dama am fu ma a dem. Uh-huh. Euh, euh, sunguf si soo ko sottee ba pare ngay raxas sa sàkkare wala nga raxas sa kanam si nekki jigéen la ñu xoolee ko cere ji wala ñu def ko si biir ceeb bi wala ñu def ko si biir euh, café Touba léegi nag man danaa wax ak Sénégal yi ñu bëree bëri nañ moytu kër kilifa aada yi ñuy wax kër kilifa aada yi ñuy wax. nañ maytu cere jeeg ceeb bi ak café yi ñu leen di jox parce que bagage yi si foofu rek la mën a jaare mënul jaare feneen yaa ngi dégg am na si yoo xam ne nii xale yu góor yi moom la ñuy def ak xale jigéen ñi parce que kooku liggéey bu ñuul la da fay gars yi dem ba Mbuur wala dem ba Dakar euh, gas bàmmeel jël fa benn yax yax boobu nag duma la wax ban yax la moom la ñuy jël dëpp ko ba mbokk am nañu koy liggéey moom la xale yi jigéen nii di def seen sacré léegi soo tëddeeg ñoom nga topp leen sa yaay sax su soxla woon ñaar dërëm xale bi soxla un million nga jox ko un million yi. am na benn jamono woo naa la fi ne la Kara ñëw na fii France soxla ma yónnee fi taalibe pour ma jaay ko benn secret ma bañ tëdd ba si suuf xam naa lu mu ko doyee woon. nit nag dangay def loo xam ne nii du am répercussion suba si say njaboot wala say doom yaa ngi dégg. Sénégal lu nekk ku ko nar wax mu tàkk ku ko nar wax mu tàkk. lu ma la wax du dëgg Marème Faye Sall bii ba muy nekk Diourbel. <laughs> couché la tuddoon couché. ba ko Macky Sall dajel boobu Diourbel la nekkoon couché la couché. couché mooy lan. dama koy ormal nag couché gaaw a tëdd. <laughs> léegi nag. dafa nank rek ji ji <laughs> Sénégal dafa am ñu bëri ñoo xam ne comme genre ah, Akhenaton boobu noonu dañuy xam lu bëri toog te pourtant duñ ay mag mais dañoo xam lu bëri parce que si ay suñ ay kilifa lañ doon toog ñuy xam lu bëri ne tekk toog. day xool comprendre nga lu ma la wax nii uh-huh. comprendre lu ma la wax ni bu baax. voilà léegi nag moo tax ma ne la carrément ne li koy wax de jigéen ñi wax su jigéen ñi waxee Sénégal toj gis nga euh, euh, kii Don Garcia pain bu ñuy wax doon Garcia. Uh-huh. woo leen woo leen mun Mountakha mu wax kan ma ko jëndal Don Garcia yi. waaw gis nga nag Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne dafa yéeme parce que dañuy jël nit. ne carrément que euh, euh, um kilifa la dugg na fi gën a fële fekk yow ji yaa leen gën a ragal yàlla. yaa leen gën a ragal yàlla. mun a mu wax nii sama benn tànk mu ngi si armeel sama benn tànk mu ngi si àdduna te lu mu yàgg yàgg sama benn tànk dina ko fekki. Kara moomu noonu na dem lijjanti kat may papaam problème bi foofu la nekk te bëri na si nag ba si kër ñaseen yi bëri na si ñoo xam ne dañu see ñas lañ sant fekk santuñu ñas dañ laajte kan mooy seen papa dañ lijjanti loolu. gune yi dañ bàyyi ñu ñuy topp nañ dem lijjanti seen avenir nañ bàyyi gis nga dëkk mënu développé tant xale yi liggéeyu xale yi nekk si taati baas mënu xa dëkk boobu mënu développé c'est pas possible jii man àdduna bi féeteg wër naa fa xamu fu ma tegu sama tànk Japon loolu yëpp liggéey moom ma fay yóbbu liggéey moom ma fay yóbbu ay mbokk ay sénégalais wala ma doon ay benn tubaab wala dugg na fi wala keneen voilà loolu rek moom ma fay yóbbu mais du leneen du taxawaalu leneen man su ma bëggoon alal dëkk Sénégal laay taw musulmaan yi lañ yor